asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yéen mbokki jullit yi ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaare di nuyu sunu sang si toog te ñaanal Cheikh Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te ànd ak wér te sant yàlla lool ci liggéey bii nga xamante ne mooy liggéey bii ñuy liggéey ci jumaay Serigne Touba ji ak li wër jumaa ji ah ñu ànd koog ñii nga xamante ne ñooy waa isinu Sanak ah te sëñ Mafal nekk ci bopp bi. ñu ànd ak sëñ Abdou Lahad sa ñoom ànd ak sëñ Lamp ak ñoom Fallou Ndiaye ak ñi nga xamante ne ñoom ngeen ma booleel ñëpp ak ñii nga xam ne ñoom ñoo jógee Sanaak ay ñoom Babacar ak ñoom ñëpp ah xëy na lim bi laay bañ mu yàgg waaye na leen wóor ne daal liggéey bi nga xamante ne sëriñ bi tegoon na ko ci suñu loxo ñu tàmbali ko biir jumaa ji jort nañ ne tey dana mën a yegg waaye ñoo ngi leen di dollee soññ te di leen dollee sant ci li ngeen jot a def te di leen soññ bu baax ci lii nga xamante ne ci leen jëm itam képp koo xamante ne ab pentirkat nga na nga takku laxasaayu te sell te sellal te indi ñaar yi nga xamante ne moom la ñu santoon ñu nekk ca muy kilifa ak qualifié kenn ku ci ne nag xam nga sa ñu qualifié yow mu ci sa bopp boo dee kilifa dangay ngay gën a dolli laxasaayu bu baax a baax baax ba boo ñëwee ci jumaa ji wane fi sa kilifa wane fi itam sa qualifié ah ñu ñaan yàlla liggéey bii nii ñu ko tàmbalee ci bisimilahi rahmaani rahim yàlla nañu maam borom Touba Mbacké jàppale ba nuy yeggale ko ci alhamdulilahi rabil alamina waaw liggéey la boo xamante ne bii nag jafe naa am jafe naa am nag am na ñooñ boo koy wax ah ñu baree bari dañ naan ah liggéey kay koo ne jox ma ma liggéey ma liggéey waaye loolu du loolu de liggéeyal sëñ Touba ci boppam moo yombewul noonu da nit dana ko bëgg te du ko mën a def nit dana yéene ba noppi yéene ja du egsi fii ci liggéey bi yéene nag daa génn lu xol xëy na kon kooku sax mooy tane ki nga xamante ne dane dama koy def ba pare defu ko kon ñun ñi nga xam ne takku nañ ba taxaw te fës ko yéenee liggéey ñoo ngi ñaan ci kàttanug yàlla ak yonente bi ak Serigne Touba ñii nga xamante ne takkoo nañ ni yàlla nañu yàlla may fan wu gudd ak wér guñ ko ma ne ba lépp loo xamante ne sant nañ ñu ko ci ñu man koo defee noona ba mu sell ba mel ni ko sëriñ bi bëggee yàlla defal ñun lépp loo xamante ni ñun ñii noonu lañ ko bëggee sëriñ Touba defal ñu ko yàlla mën na ko am na ko te dana ko def ci barke sëriñ Touba ñoo ngi jégalu ñëpp te di leen siyaare te di leen baalu àq di nuyu sëñ Abdoulaat bu sëñ bu baax a baax a baax di nuyu sëñ Lamp di nuyu Mafaal mii nga xamante ne moo jógee Sanaak di leen dollee sant di leen dollee gërëm te di leen dollee woo yéen ñi nga xamante ne yéen laa bokkal liggéey bi rawatina nag ñi nga xamante ne ñëpp dañoo jaayante woon bokk ci daayira bii nga xam ne mooy Rawdu Rahin képp koo xamante ne yaa ne woon bind ma Rawdu Rahin woowul kenn ne kaay mu bind la dañoo wax ne dañoo woote daayira daayira bi daayira bi sëñ Tuubaa sëñ Saaliwu moo toog ci xayam gii sonu jëlu kayit bindal ñu ci tur jox ñu ko wax ñu la nga xamante ne daayira bi moom la wund ku ko dégg ne bind ma ku ko dégg ne bind ma kon nag def ma ci nangam buñ la ca defee lan ca santaante dee ko def bind ma yomb na waaye jëf ja la ñuy wax waaw foo fekk daayira nga ne bind ma waale foo fekk ñuy bind nga ne bind ma te buñ nee ñëw leen def doo doo mën a def bu boobaa day xaw a doy waar nit ki nag lu muy dugg lu ne na ko xool xoolaat ko ba bu yegsee danañ xam xel ni kii ka lii ko tee mën a def kon yàlla ñu yàlla doole dimbale ah ñoo ngi leen di siyaare te di leen jéggalu te jéggalu ci kàddu yu dëng yi ci biir ak yu mel noonu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 di sant daayira Rawdu Rayaahin yi nga xamante ne maanaam fukki fan ba léegi daanaka ñoom ñëpp ñu ngi bàyyi seen i chantier bàyyi seen i kër nekk ci liggéey bi kon nag loolu ak cant da cee war. waaw niñ ko waxee woon rek ñun waa Sénac peinture man tàmbalee ko ci direction générale bu Sénac ci turu monsieur Laurent Lardes di directeur général bi ak Assane Khadra di directeur commercial bi ak suma collègue yi nga xamante ne sama mbokk taalibe yi ma àndal muy Serigne Lamine Dieng ak Serigne euh, Balde ak ñoom Malick Seck ñoom ñëpp Euh, ñi ngi leen di nuyu di leen sant bu baax te di leen gërëm euh, di wax ni euh, wax dëgg yàlla depuis bi nga xamante ne projet bi taxaw na ñun waa nag aussi ñun ñëpp jàpp naa ni dañ koo def sunu yitte ndax boobu ba léegi daanaka patron bi lu xew mu ne daw leen dem Touba coordonné xool ndax lépp yem na ndax lépp jaar na yoon kon tey mooy bis bi nga xamante ne moom la ñu indi peinture bi nga xamante ne moom lañu waxante woon ak daayira bi wax waxtaanee woon ko ak Jom Sëriñ Laat Euh, lépp yemm na lépp ñëw na boo ko xaymaa tool na xëy na ci juróom benn million ci peinture bi ngay gis ci li nga xamante ne moom lañ waxante woon ni moom la ñuy peinture fii mu nekk peinture de qualité comme li may wax ndax dañoo jiital qualité ndax mbir mi du question quantité rek dañoo jiital qualité ba nga xamante ne barab ba ca nekk la ca war a dem ci qualité de peinture bu am solo lañ ci indaale comme niñ ko waxee woon euh, euh, ñi ngi woo peintre yi nekk Touba yëpp Euh, ci turu sëñ Dan mi nga xamante ne mooy seen njiit ci daayira gi ak ñoom sëñ Fallou Ndiaye ñu ngi leen di woo ndax liggéey biñ ci war a liggéey du liggéey bu tuuti liggéey bu am solo la comme niñ ko waxee woon euh, miiru kër sëñ Touba gi danañ ko yeesal euh, jàppukaay yi nekk ci biir jumaa ji danañ ko yeesal fii barabu sëñ tubaab yi nekk te sëñ laat wan ñu ko léegi am na ci parti yoo xam ne war nañ ko yeesal jullikaay it gi war nañ ko yeesal bibliothèque sëriñ tubaa gi nekk fii ci daaray kaamil gi war nañ ko yeesal armère euh, fi ñu julle néew yi jullukaayu néew yi war nañ ko yeesal euh, morgo bi tamit war nañ ko yeesal biir ak biti ak traçage yi nga xamante ne moom la ñu war a tracer parking bi ak euh, passage culité yi wër jumaa ji kon nag ñu ngi ciy woo ñëpp di leen sant yéen ñëpp te di leen gërëm di ñaan yàlla sunu borom ñu taamale ko ci bismillah rahmaani rahim te jeexal ko ci alhamdulilah rabbil alamin jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi ñu ngi leen nuyu baax di leen siyaare di leen nuyu ci turu daayira Muxaddamatul Xidma bu jumaay Tuubaa nga xam ne laaju ci jumaa jeeg penc mi ba margu baax bàq lépp moom la yàlla dogal sëriñ bi dénk leen ko di jiite ci nuyoo bi rek sëriñ Touba Cheikh Mouhamadoul Mountakha mi nga xam ne mooy borom liggéey bi ndax liggéey bi sëriñ Touba la moom boo xam ne daayira Moukhaddamatoul Khidma ba mu sosoo ci 1994 sëriñ Saliou sosoon ko tudde ko Moukhaddamatoul Khidma ren doon ci fanweeri at boobaak léegi seen kilifteef ak seen wéye ndigal ku fi nekk Seexul Xadim yaay doon seen kilifa loolee nag lañ ko wéyale ba ci Seex Mamadu Muntaxa ba tax tey jii liggéey bi ñu taxaw di li ko liggéey di liggéey Seex Mamadu Muntaxa ndax ci moom la soob mu bëgg ko yebal ay nit Seex Seex Mamadul Basiir mu yor kàddoom mu yable ci àddal leen ndaw ñëw ñu xool liñ fa war a def li waral suñuy kàddu nag ñu yëkkati ko rek ngir dawal muy kàddu yi cant ak kàddu yëg-yëg bu ñu am ndaxte ñii di waa Sénac yàlla sunu borom dafa dogal ñu amoon engagement am yéene liggéeyal Serigne Touba ci dëkk bi ci jumaa ji ak li ko wër yàlla dogal na am ma beneen daayira boo xam ne Rawdu Rayaahin la tudd lëkkale peinturekat yi nekk ci dëkk bi yàlla dogal ñoom ñi nga xam ne ñooy waa Sénac mën a joxe bagage yi waa Rawdu Rayaahin mën a tànn nit ñi mën liggéey bi gën ci liggéey bi yabal leen ci barab bi li waral kàddu yi dëgg dëgg dëgg mooy nit ñëw na fi wax ak yow nga dem nga fàtte ni ñëwoon na fi. waaye nag waa Sénac gii ak waa Rawdu Rayaahiin bis ba nu wax ñëwee fii wax ak ñun sëriñ bi yebal leen fa ba ñu xëyee lañ tàmbale ay jëf yoo xam ne ñun ñëpp Moukhaddamatoul Khidma yëg nañ ne ñii li ñu waxoon dox nañ jëm ci kon nag loolee moo war a kàddu cant ak ngërëm sëriñ bi nag lépp looy yëg yëngutu ci moom boo ci amee pas-pas ak yëg-yëg bu dëgër sëriñ bi moo lay xëccal boppam ci liggéey bi kon nag liggéey bi liggéey la boo xam ne ba ngeen ko tàmbalee ngeen bëggoon bu ngeen eggee ci la di suite bi moo tëjtale fan yi ngeen fi nekk ñun ñi fi nekk yéen di jonjoog yéen nekkin ak anam bi ngeen ci nekkee nekkin wu rafet la yéen ñi fi andi liggéey tamit ñi xam liggéey di fi ñëw ci yor yeneen liggéey tamit xamal nañ ñu ne yéen ñii de liggéey bii ñu fi andi peinture bi ñu fi andi peinture bu baax bi la qualité bu baax la façon peinture bi ñu koy peinture bi ñu fi ñëwagun xool peinture bi xamal nañu ne peinture bi ñu ko peinture façon peinture baax la kon lañ sàkkuwoon ci yéen ñu këlafe ak ñu kàllafe loolu sàmmante ngeen moom ci bagage yi sàmmante moom ci nit ñi fi ñëw kon nag ci tudd daayira Moukhaddamatoul Khidma mi nga xam ne sàmm barab bi moo ko fa waaye barab bi barab bi lépp ñëpp lépp la kon nag ñi ngi leen jot ay cant ak i ngërëm yaatu yaatu jóge sëriñ Afia jaar ci kilif yëpp jëm si ci yéen liggéey bi nag bëgg fee liggéey tax na fee liggéey waaye na ko pas-pas lal barab bi laajut palaa passif la lépp loo fi def ngir palaa boo yëkkatee da teg tegawaat suuf waaye lépp loo fi ngir pësteef sëriñ bi moo lay téyal boppam wamatal la boppam ba na nga ci bëgg ci pësteef bi defal la ko kon nag ñi leen di sant baax tudd daayira Muxaddamatul Xidma di leen gërëm ndax sëriñ bi moo waxoon ko ci feeñ feeñ ba faaw ko ci ne bu dootoo feeñ kon nag yàlla dogal na lii ngeen def nii tàmbalee na baax Cheikh Mamadou Moustapha sosee liggéey bii tàmbale woon ko ci boobaak léegi 1932 mu yàgg boobaak léegi ba ren ji yàlla dogal ci weer wii ngeen nekk ngeen di liggéey sëñ Tuubaa ci jumaam ji tasanteeg weer wii ngeen di liggéey nii fan yu néew nii mu lay am téeméer at mel na jëf ju nangu la kon nag ñi ngi ñaan bu ngeen ci jógee kenn ku ci nekk liggéey bi loo ci am yéene na nga ko ci fas attan na lépp fasal leen ñi jiitu ji fasal ñu wér di fasal ñu fi des ñu am kàtt la gis ñu Tuubaa léegi moom boo ci nekkee loo bëgg attan na ko jox Cheikh Abdoulaye Bousso Muxtaar mu euh, ñu ngi delloo nuyoo bu baax di leen ziare ci turu Cheikh Mouhamadul Mountakha di leen nuyu tam ci turu Cheikh Mouhamadul Bassir mi nga xam ne mooy rek kàddoom te yàlla dogal seenu ñëw fi jaare ci sëriñ bi wëlbati ko jaaraat ci Cheikh Mouhamadul Bassir mu boole leen ak sëñ Cheikh yi ngeen ànd moom ñëw fii ci liggéey bi Cheikh Ibrahima itam ñuy seereel bi ne lañ ko lañ ko santoon tegoon ko ci loxoom boobaak léegi tekkiwul laxasaayam mi ngi ànd ci liggéey bi di ko topp benn par benn ba mu agsi fii mu agsi euh, kaddu cant yi waroon a jiitu nag Cheikh Abdoul Ahad wax na ko wax na ko ci nam gën a rafete euh, ca kaddu yi ngërëm it wax na ko ci nam gën a rafete euh, li nga xam ne itam mooy solos liggéey ci barab bi it wax na ko kon dafa mel ne li ma a wax lépp wax na ko liñ ciy dolli rek mooy gannaaw dañuy wax ne fa inna xusnal fi'li fi ikmaaliha mbir lu mu baax baax baax baax jëf ja ngay mm, gën a mate ca mottali ba ñu doon ñëw ñu ngi doon ñëw ñëwin wu rafet yaar yiñ tàmmoo tàmmoo woon ci ñoom it ni ko Cheikh Abdoul Ahad waxee léegi def nañ ko mooy tànn nañ ñu kàllafe tànn nañ ñu qualifié ba ku ñëw ci liggéey bi boo ko xoolee rek xam ko ndax ku ne xam na ne peinture ci biir giri boo xam ne dafa nekk ci ay weer te taqaloo weer yi tojoo weer yi waaye liggéey nga ko ba mu mat ba mu mat déggoo fi benn coow gisoo fi gone yi fo gisoo fi jalla jalaw ku ñëwut sax ci euh, ci barab bi mën ngaa bañ a xam ne ñi ngi fi euh, loolu itam wax dëgg yàlla lu am solo la te lu ñu taamu woon la ci liggéey bi xanaa ñuy ñaan nag ne noonu ñu ko tàmbalee ñu mottalee ko ci ndax loolu ñu wax léegi fa inna xusnal fi'li fi ikmaliha rafetuk jëf moom ca li ba lay doon kon li jiitu lu mu rafet rafet rek nañ fexe ba lii mujj ñëw ba mu ko yàq ginnaaw booba moom mbooloo moo fi daje mu baree baree bari waaye mbooloo moomu nag nañ fexe ba ñi leen jiitu woon bañ leen ko yóbbul euh, ndax barab bi itam tegg ni mu laaj day dolli xéewalu ki fiy liggéey ñu ngi sant yàlla nag di leen ko sant la yéen ñi nga xam ne di leen ko santal yéen ñi nga xam ne yen la suñu borom xéewale ngeen ñëw fi liggéey si Abdoulaye wax na ko léegi bari na ñu fi ñëw lool am yéene liggéey am pas-pasu liggéey bi man ko itam waaye Sëñ Tuubaa liggéey loowu leen ko yéen nag bi ngeen ñëwee Sëñ Tuubaa daf leen ko liggéey la mooy tax bi ngeen waxee bi ngeen demee rek da dal jublu ci liggéey bi ñu war a andi andi ñu war a liggéey di liggéey ñu war a liggéey itam ñu waxoon leen ni ñu bëggee liggéey bi demee ni ñu sàmmonteeg moom téeméer bu ne ci téeméer mooy cent pour cent boo xam ne dara yàquwu ci ba fii ñu toll nii loolu nag ak cant yàlla la goo xam ne dañ leen di koy santale yàlla santale leen ko Serigne Touba ndax fii moom liggéey fi dafa nekk loo xam ne doonu looy looy séntu ne mën nga cee am dara waaye loo jàpp ba noppi la waaw wax fir li man banaw bi na ahar rafin jooje moo xoon wari jami yang men awanahum jadajaa dikkaat waaye loolu nag yéemul ci ñi ko tabaxoon ba ñi ko ubbi waaye ba adduna tukki ko ci rek ndax waxoon naa ko fii keroog ci bi ñuy tàmbali ne sëñ Fall bi ñu koy jëbbale dafa woon Sëriñ Tuubaa ne ko fii kat dañ fee toll toll feek yow waaye loonu jëralut amut daan ni kon nag seen yaxub jumaam ngoog ba fu mu waaw nga xam ne waxtu wu ne rek war nañ ko joxe ne ndigalul ñu di ko yeesalaat yeesal googee nag kon dañuy xam ne képp ko ci dugg rek dugg nga ci biir liggéey boobee dugg nga ci biir ñaanuk Sëñ Tuubaa googee Sëñ Tuubaa nag la sëñ Mor moom soxna Jaara waxoon mag ñi ba ba muy door a tàmbali wooteem bii jógee Mbàkke Kajoor ñëw Mbàkke te coow li bari lool daa woo mag ñi mu àndaloon bañ ñëw mu ne leen dama leen a wax dara ci seen waaj yi wowu leen ba ngeen ñëw muy door di wuti lum leen mm-hmm. faye dafa am lum leen faye door leen woo mm-hmm. waaw kon nag góorgóorlu leen ci moom ndax lu ngeen ci def rek mm-hmm. pay gaa ngi teew ñaat ñetti bayit nag wax naa ko fi barke dem bu ñaan nañu fi ñëwoon jaar na liggéey bu ci nekk jaar na liggéey Sëriñ Tuubaa waaw fa kullu man xadamani aw saara fa najjihi wax fir lahu aw saara jullit bu nekk mucc ak mucc ci bàkkaar rek moom la bëgg ak mu yëgal koy bàkkaar rek loolu la bëgg beneen bi ci topp mooy waqdi xawaaija allazina daamu fii xidmati wa hab lahum maaraamo fajal aajo yi ñëpp ñi nga xam ne sax nañu ci di ma liggéeyal te may leen lépp lu ñu sàkku loolu it jar na liggéeyal sëñ Tuubaa ba faatu beneen bi ci des na nga xam ne moo ci dàqati mooy inna allazina saarau li xidmati fa lahum diyaar wassal janna ñi nga xam ne ñoo sax ci di ma liggéeyal ëllëg suñu borom tabaxal na leen ay kër yu mag ci digg aljanna kon nag euh, liggéey bi du làmbatu waaye daj la tey liñ li mu waxoon ko ci feeñ feeñ ba faw njariñ li fii lay tàmbalee ci àdduna waaye nag Sëriñ Tuubaa àdduna taxu koo jog ak pay ak àdduna it du këruk pay fële lay faye kon loo fi gis fii ci àdduna lu mu rafet rafet rek lu mu naat naat rek mm-hmm. ndab la lu fees bay tuuru mm-hmm. waaye la tax ñuy duy ndab la moom ëllëg lay lay lay doon sanang nag xawma mm-hmm. ñu mu doon xawma ku mu doon waaye suñu borom defal na ko tawfiq ndax barab bii mu taamu génne wëlër wutal nii def ko fi kenn mësu koo def recc ko doon na fii keroog bi ñu fii taxaw alxaaj Njóoge Kebe 40 ans ginnaaw bu mu génnee àdduna mm-hmm. jëfam dikkaat ci biir liggéey liggéey bii loolu seere la ci pasteef bu mu amoon ci liggéey bi mm-hmm. ñoo waaye kon pasteef boobee mu amoon nag dañuy wax ne Sëriñ Tuubaa la mu defaloon mag ñi ba fii mu ne mi ngi ci loxoom mm-hmm. ku ko wute na ko mag ñi doon wute amee ko na ko mag ñi doon amee pasteef ba fi andi woon mag ñi nag ak euh, détermination bañ amoon ndax loolu am na ci ñun ndaw ñi mm-hmm. wala amul ci ñun ndaw ñi foofu la mbir mi ne mm-hmm. waaye bu ci ku ci def na ñooña defoon rek mm-hmm. am la ñooña amoon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen nuyu baax di leen siyaare te jiite ci nuyu ba siyaare bi Sëriñ Tuubaa Cheikh Ahmadou Mountakha di ko ñaan suñu mënal fan gu doolu wànn wér na yaram sàmm ko aar ko ba lim naa liggéey Sëriñ Tuubaa mu def ko ànd ko mboolem taalib yëpp ci barke mu Rasuul ñuy tuub di jéggal bu baax kàddu yi ñuy yëkkati mu mel ne bu suñu waajur sëñ Mouhamadan Sène jëlee kaddu euh, sëriñ Mafal mi jël kaddu sëñ Abdou Lahad teg ci kaddu waruñu ci tegaat suñu kaddu ndax suñu kilifa sama waajur sëñ Abdou kan ma ngeen ne taxaw kon maa ngi jéglu baax kaddu me jël seen kanam waaye kaddu yu leeral la rek ak kaddu yu cant cant gi nag dañ commencé ci waa daayira bii di Muxaddamatul Xidma mu mel ne cant gi ñu cant dañ leen koy delloo ndax bi amee pas-pas bu liggéeyal Serigne Touba ak ñoom. ñoom it seetaanuñu ci liñ man ah, bi waa Sénac defee liñ man ci matériel andi ko ñu ne ñu booleeg suñ doole suñ pas-pas seetaanuñu ndax diiru ñu fi nekkee ak tey muy samedi bale gaaw bale jàll ba nii may waxee talaata di tey chaque jour ñu xëy fi waaye bu ñu ñëwee bu ñu xiif duñ mar añ bi dañuy añ ba bàyyi fi bépp xéewal boo xamante ni am murit war ko xéewal wal ab julli xéewaloo ko ah, ñoom ñu ngi ci ak ñun di leen sant bu baax di leen seddal lool. si Abdou Lahad ñu leen seereel na sëñ Saali mi ngeen ñu booleel wàll googu lépp lim ci li ngeen ko ci santoon mi ngi koy def ba def ci lu kawe njort waxuma la sax ñun ñu doon liggéey waaye eh, taalibe yi nga xam ne dañuy ñëw di bari di di di siyaar si chaque jour xéwal yooyu ñoom ci la ñu xéwal kon loolu dañ leen ciy sant bu baax ndax it nit bu fekkee ne day def li ko war waaye nam koy defee rafet rafetu defit nga moo tax nga war koo sant donte li ngeen def war na leen ndax képp ku liggéey Serigne Touba ku la fekk ci liggéey boobu dalay jàppale loo ko defal sa wareef la waaye definoo mooy rafet rafet gi moo tax ñu ñu leen ci sant yéen it leen sant ci turu uh, Rawdu Rayaahin ak waa Sanaag leen jaajëfal bu baax ci loolu di soññee bi sax du ma ci ñëwaat ndax baay bàyyi Mouhamadou Sène li mu jox doy na ak sëñ Abdoulaye mi képp ko man sept na la fekk si jumaa ji incha allah boo ñëwee la war ci ndekki di ko def danañ la jox ndekki lu mucc ayib nga ndekki ñu tàmbali liggéey bi suñ nee ba waxtu añ jotit xéewal dina ñu añ ba ba sant dañ paree gont eggale liggéey bi kenn di xaar xéwal ba mu lay tardel fenn ku xëy yeewu 7 heures nan la fekk si jumaa ji soo ñëwee comme ni ko sëñ Mafal waxee léegi def nañ ay équipe bu ñu defee équipe équipe bu nekk danañ ko booleeg euh, njiit bu ko jiite kenn ku nekk li ko daggee ci clôture bi ba ca groupe bi ba dem ci daari kaamil ba ci julleekaay bi ba ci biir marko bi fu ci nekk lam yelloo ci mbooloo danañ ko fa teg danañ boolee ku leen jiite ndax mbooloo mënul ñàkk ku leen jiite mhm. mbooloo duñ jug rek di dem te duñ am ku leen jiite il nekk ci kanam li sant mbooloo mi nag ci sama kàddu mooy képp ko xamante nii teg nañ ko ci kanam mbooloo mi ak équipe bu ñu ko mën a booleem yàllantoo ñu ko mat bàyyi ne fa yàllantoo ñu ko mat mag yàllantoo ñu ko mat najaay doom googu nañ ko jàppe kàddu sëñ Mouhamadane mi jiite daayira bi lu mu leen sant ñu def ko da xam ne sëriñ Mouhamadane moo leen sant ndaxte sëriñ Cheikh dañ doon wax nañu euh, nit bu ko kilifa yoon yónnee su demee ci barab doonatul moom taxawaaye kilifa ga ko yónnee la fay la fay représenté kon képp koo xamante ni jiital nañ la nañ la booleel lañ lay sant lam la lam santaan nañ ko def te xam ne Baye Mouhamadane moo nekk fépp daa mënta daj mbooloo moo tax ay njiit waaye kenn ku nekk fam fa teg moom moo fa nekk euh, ci wàllu matériel bi ñu ciy soññee bu baax képp koo xamante ni yàlla dogal na ngay peinture kat bépp échelle boo am moo xam muy échelle escobo échelle bu gudd bépp échelle boo am ñu ngi lay sàkku nga andi ko ci liggéey bi kon loolu ñu ngi ci bu baax a baax a baax a baax di santit mboolem ñi fi jot a jaar di santit mboolem ñi fi jot a jaar Euh, suñ ko commencé ci Baye Abdou Lahad Kan mi Baye Abou Saw euh, ak suñu Baye Sougou mi ak Baye Mouhamadan ak suñu Baye Xaadim Ndiaye ñoom ñëpp ñu ngi leen sant di leen gërëm mu mel ne euh, bu ñu ñëwoon rek bu ñu seen njaboot rek toog toog dana doy dana doy waaye teew doon yabal seen njaboot pare àndaat ak ñoom ndaxte Baye Abdou Lahad me ba muy dugg ci métier mi moo sama baay ñoo jàng na métier booba sama nopp man ganee gu ma àdduna su ma demee ba yor responsabilité gay yi ay yor sànce di jiit ay gone di leen liggéeyloo te moom mu kon ni di ànd man liggéey bi ñu woote liggéey mu ñëw mënu ma ko ci loolu pëstef la loolu sëñ Tuubaa rek moo ko man ndax keneen ko wootoon ku dul sëñ Tuubaa moom bu ñëwee day toog di coordonné rek mais du ko sant bu baax te di leen jaajëfal ci suñu men mago murit di bàyyi mu teg di ko amoon pëstef da bëgg bi suñu borom daa dogal a xaw sutante ñuy sàkk seen blaxar ngeen ko ñaan ba suñu borom defal ko tawfiya bu mën a ñëwaat ci liggéey bi suñu Tuubaa bi bu baax it ñoom sëñ Abdou Lahad lii firndeel euh, li sëñ Abdou Xanaa léegi ci liggéey sëñ Tuubaa bëgg dem bi ñu toogee fee di liggéey daa am benn waay bu jógee Mbuur ñëw gis ñuy liggéey mu ne ma man pentkat la man ko ah, yow sa bàyyi laaj bi nga sol sañce ba rafet mu ne ma dama la man Mbuur laa dëkk am entreprise fan yëpp maa ngi toog di xalaat ban programme laa mën a am ba fexe liggéeyal sañ Tuubaa balaa màggal ge ma xamal ko liggéey bi mu wax ma ne alxamis incha allah bu xëyee dana jël entreprise am ànd ak ñoom passé leen ñu ñëw yendu ci liggéey bu ngoonee mu dellu maanaam loolu rek firndeel firndeel firndeel ci liggéey Sëñ Tuubaa euh, euh, euh, booy xool ñun ñi ñu gën a sori dëkk bi sax ci waxin ñu ëpp pas-pas ak yëg-yëg def ko kon ñun bu suñu borom xéwalee bañ ne ci dëkk bi ñu amaat tawfeex ji comme ni ko sëñ Abdou waxee ñu góorgóor ci bu baax a baax te it kàddu gi may jeexale Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke Serigne Chouaïbou dañu doon wax nañu sëñ Abdou Lahad moo ko wax ci lamañu boppam na ko ñaar nopp du ko dégg te bët du ci tege dama doon liggéeyal Serigne Touba ba sama raw ba sama sama sama mas raw ma nee na nit du ko dégg te du ci teg bëtam kon na ngeen góorgóor ci liggéey Sëñ Tuubaa bi te doomi Sëriñ Sooy bu la diggante mu Sëñ Tuubaa Sëñ Sooy bu moo ci dox bu takki der laxasaay ba Sëñ Abdu Lahat di ko soñ kon ñun di taalibe ñun xamul nañu war a def maa ngi tuub baax di jégalu asalaamaaleykum wa